wajalilaayi maskani Tuubaa baat misrasmi abijaayi xayri man abaat nañu taxaw temm ci dëgër ci jamono ji nga xam ne àdduna sëngëm na jëfandikoo sabab yi te lu ci yàlla korona coronavirus du dox sunu digganteeg liggéeyal sëriñ bi ci Touba jàng nañ ci sëriñ Touba ne jëf ju baax tey dàq musiba ak bala joxe ñaari téeméeri dërëm ci Touba ca kanam weer wu ne nag boole na jëf yu baax yépp nañu wéyal liggéey bi yéen ñi am pas-pasu tàbbal seen koppar ci liggéeyu sëriñ Touba bi te féete fale ca États-Unis

18 di tuub di balante ak te ñaan yàlla mucc gu ànd ak yàlla musal ci corona. maa maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom. te di ko jégalu.